dañuy wax ne li kulli maqaamin maqaal ndax wax dañuy wax ne ñett la ñett ñett ko war a wax li ngay wax ni nga koy waxe ak fi nga koy waxe kon day mel ne jataa bi li may bëgg a wax mën naa ne lu génn jataa bi la waaye nag iteel gum ma ak ñor gum ñor ñëpp moo tax mënu ma ko ñàkk wax ndax boo demee ci ibnu duraydin day wax ne lakinnaha nafhatu masdurin isa jaasalu xaamun min nawaahiha xama am na loo xam bu feesee sab dënn rek boo xëy génne doo ko tey ndax fan yi shaaiaat yi dafa bari ci réew mi nit ñu bari di wax rawatina ki yëkkati kàddoom duma ko tudd ndax xas ab jullit duma ko def te dañuy wax ne nit bu la defee dañuy wax ne wa in isa kunta akram akramtal karima malaktahu wa in kunta akramtal la ima tamarada kon am na suñ kilifa gu baax goo ko daa firee ne nit ku baax dis gor boo ko teralee moom ko ab kàccoor nag boo ko teralee mucc mucc ci ayam wala mu fétteeru dem waaye loolu amul solo Serigne Touba li suñ suñu borom defal kenn mënu koo wàññi. du ci wax du ci jëf du la ndax ñi ëppoon kattan di Touba bi fu ne jéem nañ faa jaar moom fune jëm jéem nañ faa jaar moom mënuñ ci dara jéem nañoo jubóog moom booba it la wax mooy. fa in i'tazalukum fa lam yuqaatilukum wa alxaw ilaykum salam waaye nag wa in janaxoo li salmi fajnah waaye nag wa in lu ci ne moo ko kon Sëriñ Tuubaa loolu moo doon tawqi am mooy bu ngeen defee la ngeen defoon ñu defaat dañ defoon kon noonu ko Serigne Moussa Ka waxee ci biir mbind bi rek mooy la leen Serigne Touba léebu bañ demee boo ko delloosi ndax boo seetloo ci biir xasida yi nga xam ne euh, ci bahriyaat yi la da ngay dégg bu buy ñaan suñu borom delloosi ko Sénégal bi laa tax sabbubin min nii lay wax taw bañ ko saw kon Serigne Touba defu fa genn loo xam ne ak ñàkk fayda la mm-hmm. di fa dara ko mën a jame dara loo xam ne tubaab mën nañ ko nett li ginnaaw ndax lépp ñoom bind nañ ko muy lu leer nañ bind yëpp yéem sëñ Tuubaa ci jom ji ak fulla ji ak fit ak dëgër gi la ñuy def mm-hmm. kon kooka tuuti na ci nit koo xam ne dafa toog fee waxtu ne muy xool li gën a ñaaw di ko teg ci deru Sëñ Tuubaa mm-hmm. te muy loo xam ne nit ñi mën nañ ko saafara seen seen bopp ci benn bi soo la fan waaye nag jàmm bu amee cim réew day am lu koy sàmm. Mhm. ndax pas-pas bu toll noonu pas-pas yu toll noonu sax laay wax. Mhm. ndax yëmmalu ko Sëriñ Tuubaa mhm. kenn du ko fooyee. ndax bu nit ñi jugee saafaral ko seen bopp. lu ne mën na caa juddoo. te loolu baaxu cim kon moom itam na maandu. buy waxati na wax ci lam xam. na wax ci lam gëm te bàyyi ñi nga xam ne yoonam néew ci ñoom mu maandu ci ñoom. liñ mujj wax ci Serigne Touba nag ba àgg ci di wax ne tubaab yi xamul ni ñu ko nettalee sax ndax man diggu ma ko di ko diglu waaye liñ ma nettali ca nam ko waxee bëgguma jaar ci baat yi di ci jum waaye nam ko waxe demewut noonu Serigne Touba dégg ngeen Cheikh Abdoul Ahad la mu wax ju leer nañ la ci koor fu mu fi mujj fekk Saxbaan tàggooguma Ramadan nuyooguma koo xam ne Saxbaan Ramadan ñoo lay ñoo nuyu nag ku àgg foofa sa digg sa borom eh, tuuti ne ci mbindeef di la wax ab tubaab te tubaab yi Serigne Touba xam ngeen ne mosu leen a nongul dara ci ci boppam bañ ko bëggee takkal médaille dafa gàntu bañ ko bëggee dem dem ba ci mujj gi ñu àgg ci ne dem nañ ba xam ne liñ jortoon ci ak liñ amoon liñ liñ bëggoon amut ndax gis nañ ne mboolem ñiy woote lu baax rawat na suufiyanke yi dañ dañuy dëddu àddina ne ci àll bi di lekk eh, ay xobi garab wala ñuy dëddu loolu bu amee àdduna kenn du ko dundal yow nag gis nañ ne lislaam ji ngay woote ñépp dana jub ñëpp dañ tegu ci yoon kenn du tooñ te nit ñi itam adduna si dana defar ndax nit ñi danañ liggéey kon nag dañ laa bëggoon a jiital ci liñ daa tudd AOF li nga xam ne France moo ko yilifoon nga jiital islam bi yëpp bañ ko waxee sëriñ bi sëriñ bi laaj leen ba xam lu ci seen xalaat ñooña mag ñi rafetlu ko ne ko ah loolu de xanaa mbégte la ndax eh, ñoom de ndegam ñoo jortoon ci yow daal dem ba wëlbatikuwaat wax ne dañ laa bëgg a loolu dana am solo ndax eh, ñoom buñ xasee ba jiital la dañ ci force ñëpp Sëriñ Tuubaa nee loolu nag laay bañ ndax yéen ñi ànd ak man de lu ma leen digal ngeen def ko lu ma leen tere ngeen bàyyi xam nga loolu lu ko waral da ngeen ànd ak man ngir yàlla ci seen coobare ñoom nag lañ bëgg bu amee. ku ci ànd ak may du doon du doon seen coobare mm-hmm, mm-hmm. force lay doon mm-hmm. te la ikraha fi diine daan te inil kaafiruuna illa fi xurur nee ñi wedd yàlla lu ñu la wax rek ay wor lañ ca nar kon Sëñ Tuubaa mbiram wees na loolu kon kuy wax na wax ca la nga gëm wax ca lam xam koo xam ne gëmoo tasawuf nga yem ca la nga gëm ndax ñun amuñ jotug di tontonte loolu nit day nekk ci lam nekk gëm lam gëm te ne loolu jëm nañ ko ay ay ay fukki at ay fukki fukki fukki at saa suñ xëyee luñ gën a wax ci Sëñ Tuubaa lu ñaaw nit ñi seen positif di gën a wér ci Sëñ Tuubaa seen doogu ci Sëñ Tuubaa di gën a dëggu seen seen eh, eh, jaayante ci Sëñ Tuubaa di gën a dëggu kon loolu jëru sa xalaat ku am jot sax mooy nekk ci den digloo ko jéem a xool ca eh, la ñuy wax ndax loolu amul solo man man de bu ma ñëpp toppoon ñëpp day noppalu ndax du ma ko dégg. duma ko diglu te kenn du ma ko wax lu ma ci dégg rek ci jotaay laa ko digg te bu mu amee sa bu ma àndee sama sama sama coobari du ma ko dégg loolu kon na ci na ko ñëpp xamee noonu am murid nag day am fulla wormaal ñam ñam bokkul xalaat te ne ci Sëriñ Tuubaa yem ci eh, mel na Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon nee woon na am murid day mel ne ëkk ta mel ne xobu garab. neen xobu garab ngelaw lu jug yóbbaale ko waaye xob ngelaw la ko dugal ca pax ma rek génn waatu ko ca ñun foofu lañ nekk Sëriñ Tuubaa rek lañ dégmal xoolu neneen te xam nañ ne itam li fi suñu pësteef mi ngi wér suñ digg ak Sëriñ Tuubaa suñu digg ak Sëriñ Tuubaa di di di sell muy dëgg muy lu dëggru ci ñun lépp luñ yuutu danañ ko jot lépp luñ lu luñ dëgmal danañ ko daan mm-hmm. ndax waaye ci liñ wees lépp dund nañ ko ci te Sëriñ Tuubaa wane na ko te Sëriñ Tuubaa mbiram saa su xëyee day gën a jag di gën a baax di gën a defaru loolu nag mbirum suñu borom la ndax yuriduun an yutfiu noorallahi bi afwaahihim loolu wa yaaballaahu ak euh, wallaahu mutimmu nooruhu walaw karihal kaafiruun kon neexule waaye mënuñ ci dara saa suñ xëyee di gën a jéem a naxal mbirum Sëriñ Tuubaa dañuy mel ne kuy su kuy suul kuy suul ker <laughs> loo gën a jal mu gën a yëkkati ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu.